liggéey bi moo doon jafe-jafe yi am ci koñ yi muy ndox mi mbënn mi ni mu bare wande fenn fu ñu dayoo ba mu toll ak na mu bindoo nañu seet la nga xam ni moo laaj xalaat wande moo laaj moyen moo laaj mbooloo mu ko def moo laaj jumtukaay ak koom mu ko def loole sëriñ bi digaloon kuréel gii ne nañu waajal loolu lépp fenn fu ci ne nañu song loole pour man koo daan fii ñu nekk nag di talib sëñ Abdou Xaadir bii fii ñu dëgmal ku ko topp ko ne bari na ay béréb bi ndox yu nga xam ne moom la wax ay point bas ndox mi bu dee daw dafa am gox yu nga xam ne fa lay wàcc mi ñëw fi ginnaaw bu mu duggee ci biir kër yi ba feesal ko dell pour lijjanti lu mel noonu nag da ngay dàkk déeg yooyee maanaam fexe ba ndox ma daal di fay jóge waaye mu jóge ci anam yu nga xam ne bu mu jaara fenn di ko yàq ndax am na réseau bu fi nekk bu nga xam ne bu ñu liggéey ci mel noonu maanaam ci réseau bi la ñu koy dugal fii suñu ginnaaw am na grille avaloir bu nga xam ne ci wetu kër sëñ maam Mor Mourtada la nekk loolu moo dugg ca ca euh, réseau gravitaire ba nekk ci buntu jumaa ja nga xam ni loo ci mënoon a sotti ci ndox nu dayoo ba toll moom mën na koo daal di yóbbu machine ya koy indi aussi lépp lu ñu toll capacité de pompage ba ñuy am lu mu bari bari lu doole ja bari bari bu dikkee amul tasaaroo amul dugat ci génn kër système boobu lu ci nekk lu ne noonu lañu koy jàngate mu mel ni fii ñu dëgmal ci suñu wetu wetu euh, euh, loxom di joor nii ci penkub tali bi ku xam sur ak kër sëñ Matar Binta Lo ku xam surra jëmmi surra ci boppam goog sëñ Abdou Xaadir wande ku xam gede ca poste courant ba maanaam mooy xur wa ca kambi surra ya wande boo continuer jàkkay sëñ Abdou Xaadir béréb bu tedd ba ba nga xam ne sang bu tedd bi julli na fa wande njabootam googe fa nekk ku ne xam na ni ba ca pencum kër sëñ Omar Boussa wande nga dem gede gu mag foofu yëpp dafa am ay xuri ndox yu fa nekk yu nga xam ni dispositif bu mag bi rek ko mënoon a ñu jël nag machine yu baree baree baree bari fii ci wetu surra maanaam lu mat ñeenti machine yu mag yu nga xam ne benn bu ci ne refoulement 600 mi ngi fi woon moom la ñu fi tàllal ak ay tiwo euh, PhD yi tëral ko ba nga xam ne dana mën a génne ndox mi sotti ko fii ci suñu ginnaaw waaye tiwo yii ngeen gis ba ci yii ñuy lem ña nga ko dàkkoon jëmale ko ca pencum suñu Abdou Khadre moomee foofee machine ba nga xam ne moom la ñu fa teg maanaam 600 mètres cube heure moom lay dégager wante la ko wër tegaat nañu fa ci pencum Guédé maanaam machine bu nga xam ni dana génne 400 mètres cube heure dana ko dégager am na beneen machine bu ko fekk ca biir marché ba maanaam 200 mètres cube heure lay dégager ca wetu kër Cheikh Bass la ko féete ca côté Saalum ba ñetti machine lañ fa tegoon benn bu ci ne 130 mètres cube heure moom lay génne waaye fii nga xam ne moom la ñu tëral machine yooyu dañu ko jokkale woon ak conduite tuyau yi ngeen gis ci ginnaaw ñu di ko lem nii maanaam matoon na 2 kilomètres di koom mu baree bari parce que fii mu ne nii li nit ñu dul xam jëmmi machine yooyee lu mu seer seet jëmmi tuyau moo ko seer tuyau doublé na njëgu machine tuyau doublé na njëndi njëgu machine lii li ñu ko jënde fii ne bu ñu ko doon xayma bu ñu ko xëy nit ñi ne déedéet wande romb na dix millions de francs CFA te keroog ba ñu ko sàkkoon ne mënuñoo ñàkk am deux kilomètres de tuyau commission ba ci njiitul kilifa yooyu dañ koo daal di jënd joxe ko ngir liggéey bi ñuy liggéey ñu mën koo liggéey ba ba ba ba mu jeex foofee nga xam ne nag ndox ya nekkoon na fa boo gisee ñu di ko lem nii te parce que alhamdulilah yàlla def na ca tawféex boo dikkee ci poste Guédé bi fi poste courant bi nekk dañ faa wàcce woon ñaari électropompe bu nga xam ne benn bu ne 600 mètres cube heure lay jóge loolu DPG yi moo ko indi woon waaye sapeur pompier ak ñoom sous préfet ñoo woo waa Senelec ñu wàcceel ñu fa courant ba ñu def nga xam ne pompe yi dañu doon takk vingt quatre heures sur vingt quatre pompe yi génneetul ndox fii ne yi arrêté nañ leen la ko def mooy ndox ma jeex na bu la neexee nga defa waaxu te bis bu jëkk ba Amadou Samba ngi ni ñëw nañ fa kenn ci ñun ku ñu may woon ndox ma ndax am na sapeur pompier doon dugal di installé installé ndox mi ci seen baat yi la àggoon am courant bu fa nekk buntu ba daa tëje woon ndox maa ngi woon ci buntu fem ne ña nga ne ngàll buntu mën ngaa waaxu ba dugg ca biir loola fa tegoon loolu ma la wax li koy wërale ay ay ay yu mag ñu koy indi yii 600 mètres cube yii 200 mètres cube te du benn dañu doon indil moto bu mag boobee nga xam ne électropompe la moom tamit ñu teg ko fa muy bi Eiffage indi woon tàllalal ko 1 kilomètre 500 de conduite ku xam fa jàkkee sëñ Abdou Khadre nekk ak kër sëñ Maam Mourtada nga xam ni li ma wax ni méngoo na ku ko xalaat xam ne boo fi dawalee woto xam ne li ñu wax dara dañu ci coow baa ngi nii foofa tamit ndox ma wàcc na fu la neex waaxu fa la des rek mooy yenn kër yi nga xam ne ndox mi dafa tëj woon ci biir moom lay gone yi di génn ni waat ne benn machine bu Touba ca kanam ña ngi ko fi bàyyiwaat fii ne pour que la fa nekk mu ko koo ngecci bu ko defee machine bu mag boobee fa nekkoon moom ci la ñuy xalaat comme dindi nañu ci woom machine ba suy danañ ko yëkkati seet yeneen gox ndax fii ci wetu wetu wetu euh, li wuti Kawsara wuti neen wuti Ndaamaatu foofu ay gox a ngi fi nga xam ne laalaguñ ko moo tax ñu bëgg machine yi ak matériel bi fu ñu teg ba foofa am tawféex commission bi day àndandoo jëlaat ko dem la ñu defoon foofa ñu installé waat ko ak dispositif bañ amoon ba ndox ya fa nekk incha allahu rabbi bëggu ñoo bàyyi fenn ci Tuubaa ndigalu sëriñ bi bëggu ñoo bàyyi benn gox bëggu ñoo bàyyi genn kër bëggu ñoo bàyyi benn doomu aadama ndax sëriñ bi loolu dong la dëgmal loolu dong la dëgmal bàyyiwul kenn moo njaboote ñëpp kon nañu jàpp ni fépp la ñuy liggéey waa ne koy liggéeyi xel li ñu bëgg mooy fu ñu étudier ba xam ne fii la ñu war a tàmbalee nañu tàmbalee foofu fa ca war a topp topp ca fa ca war a topp topp ca ba ndox mépp sedd loolu mooy liggéey bi fii ci comité technique bi nga xam ni ci kuréelu euh, junnatu liman nazamaaw boobu la bokk muy benn commission bu fekk yeneen ñeenti commission ya nga xam ne ñoo dargande liggéey bi yëpp di bokk di xalaat noonu rek la ñuy liggéeyee ci kuréel ga ci ndigalul kilifa yi wànne lépp lépp ci ndigalul Cheikh Mamadul Muntaxa mi nga xam ni moom moo ni mooy euh, ñeenteelu ñeenteelu euh, ponk ba ndax bu nee Hizbut Tarqiyyah ne Touba ca kanam ne commune moom nee na moo leen di ñeenteel te yaakaar naa ni loola moom kenoom googe moom mooy taawu lépp kon nag ñoo ngi koy ñaanal rek yàlla gën koo gën koo gën koo dëgëral wax dëgg yàlla yàlla ñu ko lu ñu ko sàmmal doyul na yàlla defal ko tawfiix ak sutura yàlla suuxatal ñu yéeneem ba noonu mu koy ñaanee rek bu ca dara dara dara dara laal suuf te ñu àndante ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu

jàkkee sëñ Abdou Khadir foofu la ñu njëkk a tàmbalee jàkkee sëñ Abdou Khadir nag la tax ñu tàmbalee fa mooy li nga xam ne mooy Gédé Bousso euh, jàkkee sëñ Omar Bousso jaar marché Gédé yooyu yëpp dañu jël benn pompe bu mag teg ko fa ngir muy sotti foofu li nga xam ne mooy sura da ci am loo xam ne da doon xëcc li nga xam ne sapeur pompier xëttaloo nañoo ak ñoom muy ci sura dafa am loo xam ne da ko doon xëcc am loo xam ne encore da ko doon xëcc ci lu de lu am loo xam ne ko doon xëcc loo xam ne day jóge encore sura ci yeneen côté nga xam ne foofu amoon nañ fa juróomi juróomi tiwo yu mag yoo xam ni tiwo yëpp ay pompe yu mag lay doon à part pompe Eiffage bi nga xam ne moo ne ci milieu bi ci digg bi nga xam ne pompe yooyu mooy pompe yi nga xam ne tol na tol na ni pompe bi nga xam ne moo ne ci bassin Kër Ñang bi nga xam ne mooy xëcci sànni fi nga xam ne mooy mooy euh, mooy mooy euh, mooy Daaru Rahman jëm foofu di jëm foofu foofu la ñu fexe woon tey jii nag ñu ngi ko tàmbali woon le 22 mais tey la 30 la ñuy doog a pare doon dindi yenn tiwo yi ngir commission bi xoolaat yeneen yi nga xam ne ca la war a dem mais loolu téewul tam commission bi danañu wut ay pompe yoo xam ne commission boo xam ne ay pompe yu ndaw la ñu yor ndax am na moo xam ne des na ci biir kër yi yoo xam ne dañ ko war a génnewaat ci biti waaye pour le moment li nga xam ne tàmbalee woon foofa dem na fi nga xam ne mooy mooy mooy Daaru Njaay Daaru Njaay léegi nii agsi nañ euh, commencé nañ jox nañ leen 300 mètres yoo xam ni euh, tiwa 300 mètres yoo xam ni yu 200 la ñoom it nañ leen li ñu ngi commencé xëcc bu ko defee loola jeex fi nga xam ne mooy Touba Daaru fi nga xam ne mooy Touba Taïf ci école yi nga xam ne mooy école yi Serigne euh, Modou Moustapha yi euh, Mor Fall Mbaye mi ngi foofu ak équipe bu boo xam ni dégg la comme ñi ngi foofu présentement wàññiku na xëcc nañ ko démb mais tiwo lañ manqué woon mais jox nañ leen li nga xam ne jox naa leen jox nañ leen ci turu commission bi démb lu toll ci 150 mètres ñu mottali ko loolu lañ doon tiré pour le moment euh, yaakaar naa dans dans quelques minutes loola jeex noonu tam lañ def ci yeneen kër yi am commission boo xam ni day dem di jël ci biir kër yi di génne ci biti di jël ci biir kër yi mooy pompe yu ndaw yi ndax daja am kër yoo xam ni euh, ndox mi daan nangu kër yi ba pare ndox mi des foofa bala nga ko mën a génne il faut nga génne point barre yu mag yi dama naan ci jàkkee sëñ Abdou Khadir ju bari nañu xam ni du question dañ ko def pour ko ñu kër sëñ Bass Abdou Khadir dafa nekk lieu boo xam ne juróomi raakool yu mag yoo xam ne ay pompe yu mag la ñoo ko fa doon yi doon moom pompe nga xam ne pompe 200 yi tuyau 200 yi ñoo ko fa loolu moo tax ñu yàgg fa ndax pompe bi ñu yor Eiffage indi woon ko bu fekkonte ne ñooñu sotti wuñ une heure de temps wala deux heures de temps loola jeex loolu nag ci lañ toll yàlla dogal nag bi ñu commencé taw bi fekkaat ñu ci mu tawaat taw bu am doole fépp rempliraat moo tax fi ñu pour le moment fii ngeen gis ñu taw ni ci point bi ñu ngi commencé dindi yenn tuyau yi euh, fi ñu toll nii tuyau bii ngeen gis nii mi ngi jógee Soura Soura gii la jógee dégg nga daanaka li ci bariwul moo ci des que sëñ Fallou Boussa moom it la ci des bariwul léegi nag noonu lañu fas yéenee xool yeneen son yi ñu connecté ko pour le moment loolu daal fi lañ toll wax dëgg yàlla amuñu nag euh, benn jafe-jafe ci li nga xam ne mooy euh, population bi ñëpp jàpp nañ ci euh, wax dëgg yàlla ONAS ñëw nañ parce que bar bi nga xam ne moo nekk kër Alaaji Mbàkke Kebe ONAS démb la ko doon xëcc mais nee na buñ ñun bu ñu parewul maanaam bu ñu parewul xëcc yi baar bi day des jot naa seen responsable nee ñëw xëcc ko lu mel ne ay ay ay quelques mu génn am na foo xam tam yi jotu ko léegi capitaine sapeur pompier mi ngi ciy wax ak man maanaam sapeur pompier fi ne woon jeex na mais daa am fu sori ci biir foo xam ni il faut ñu gas ko wutal ko yoon boo xam ne day ñëw fi pompe bi loosee ndax loolu mooy problème bi maanaam pompe yi duñ mën a déplacé wu ay girée koy déplacé wu léegi nag bu ñu xëccee ba nga xam ne am na fu des il faut dañ koy gas xotti ko ba mu ñëw ci point barre bi ñu dindi ko pour le moment daal foofu lañ toll ak li ci des mooy jàppoon nañ ci ñoo xam ne euh, dañ doon jaar ci kaw tuyaux yi ñu koy wax nit ñi parce que mënuñu di xëcc ay tuyaux lu mat ay junni junni population ñu leen di xëcc yow nga yor camion ciment ñu taal pompe bi nga jaar ci te ba pare ñu ne la bu ci jaar nga jaar ci kooku démb dañ ko sanctionné vraiment ñu ngi ciy remercier commissaire Diegane Sène mi ñu jotoon mu boole ñu ak matandooy sàll ñëw jël si pièces yi waa ji dañoo mujj bën bën boobu 75000 la fay dégg nga la ko bi mu fayee 75000 ñu daggal ko reçu mu fay mil ci turu commission bi commission bi daggal ko reçu noonu tam la ñuy wax nit ñi ni leen ku ci dagg ab tuyau wala nga bënn ko wala nga wala nga def ko dangay fay noonu tam am na ci sareet yoo xam ni toj nañ ci ay câble ay ay ay ay raccordement yu bari yóbbu nañ leen ci yoon fi nga xam ne mooy commissariat guy mbind li ci war yoon dana ko def parce que dañoo ñëw yàq yenn tuyau ba pare ko di jaay euh, ñàkki teggin wane duñ fa jaar loolu tam li ci war mooy police dana ko def incha allahu rabbi mais ñi ngi kon ne opération bi ànd ko ak sunu mag àll ñang mi ngi ni taxaw ci turu bi ànd ko ak sunu baay Idrissa Idrissa Idrissa Diagne mu bokk ci commission technique bi comme ni ko Serigne Mountakha waxe woon dane woon euh, Touba ci kanam ak Hizbut Tarqiyyah ak monsieur sous sous le superviseur de monsieur le maire noonu lañ ko defee chaque jour jafe-jafe bu am ñu dem kër Serigne Touba luñ ci war a def ñu def ko ci ñu waxtaan ci dégg ko ñoom it ñuy ñu yor seen oto di def li ñuy wax reconnaissance képp ku na ñu def foofu kon mooy loolu du ko def mooy loolu ñu ko nit liggéey boobu suñu am sam suñu blaatam sant ma ni ba naa ñëw ànd ak waa kuréel gi dégg nga la ko xuddaamul ñëw ànd ak ñoom Touba ci kanam ñëw appuyé ñuy wax waa maire Dakar ñëw nañ def ci ñun fi ñu njëkk a tàmbalee mooy diggante Kër Sëñ Ablaat ak Kër Fallu fii la ñuy jógee te ñu ngi dem feneen dem feneen vraiment di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax la te sëñ kenn du ko liggéey loolu la ci fekk di sant àll mi nga xam ne booba léegi ñu ngi ko ànd ak isbu tarixiya ak ki nga xam ne mooy sàmb mi nga xam ne moom la ñu boole loon vraiment ñu ngi kon ne fu ñu ci tool tam dañ leen ko wax ba keroog mbir mi di jeex incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu wa jannatan li saalikin muridi wa jannatan an haadikin marid